waaw milieu bi ñu bokk ko. ñu bokk ndey bokk baay nga gis Wally balak hmm. mooy ñu ñaanalante. Hmm. baalante àq. Hmm. ah loolu ci weeru koor gi loolu dafa rafet. dafa rafet dafa neex. te Sénégal ñun lii lañ bëgg. mooy jàmm ak salaam. ñaar ñooñu noo leen gisee ñaari ku ci mel ni Pape Diouf ak Wally seen talent seen talent noo non ñooñu ñooñu bon tout d'abord dama leen di nuyu damay nuyu parce que démb barki démb maa ngi gis nga invité sama mag sama xarit. Mhm. muy muy Waly Seck ah. moom mooy. Mhm. xam naa nag du ñàkk après kon ko tey la anniversaire am ñàkk ñoom lañ ko mhm. defal. waaw mënut a ñàkk. mais mu wax mu wax wax ju rafet. démb seetaan Pape mu wax wax ju rafet ñaar ñooñu nga invité. ay mouvement lañu ci musique ci musique Sénégal. Waly ku ko déglu mu way nga xam ni yaa way Mm-hmm. après eh, borom xol bu naay la. man mm-hmm. man ma may daaneel. dëgg la may daaneel parce que macha allah eh, ay harmonie ak bëgg liggéeyam. man ma mm-hmm. faral ci wàllu jikko yi la gën a neex. bëgg liggéeyam nga koy génnee ci moom. ku fonk am nag wax dëgg yàlla. waaw ku am fu mu jëlee musique la. am feneen fu ko yóbbu. ay ci waar ba nga xam ne jii tey ji amul mag amul ndaw amul gone xale bu am deux ans sax mën na la toog di la taril morceau Wally Seck yàlla ma def ni mu mel ma koy mm-hmm. ah bàyyu ndeela bàyyu moomi mm-hmm. mu ngi lay seetaan na la leer na mu ngi lay seetaan ah, nit ku baax la mooy liñ nga ko waxee mm-hmm. soxna non ku baax la et puis ku rafet xol la dëgg la ku rafet xol la ba pare nekk Baye Fall bëgg Cheikh Abdourahmane Fall Tilala sama papa macha allah ñu ñu bokk mhm. ma ak moom ñu bari parce que Sidi Diop mhm. Sidi Diop bu taxaw ci kaw seen mhm. euh, nga ñëw seetaan si ko da ngay gis Waly Seck au début man ak moom ñu bari am ay ay ay ay ay xaritam yu bari ndaysaan bu jouéwul bu fi nekkul dem Europe ay yu bari dañuy ñëw dañuy ñëw sama soirée sama grand bi passé rek bokk ci staffam dafa grand théâtre moom ak seen bi te loolu. Mhm. te ñun ñoo bokk ndey ak baay. déjà muy sama mag di sama di sama frère dafa am benn année bi may doo ko commencé Balla. Mhm. ma nekkoon ci koñ bi di Petit Kanam. Mhm. Euh, studio benn studio moo newoon ci koñ bi studio Lamp. waaw Amady Badiane moo ma njëkk a découvrir avant Wally. frère boobu fekk ma foofu may football mu ñëw xam nga ne ma demal nga ana woykat ak football boo fi dem kaay demal nga sangu ji nga ñëw daa am benn morceau bu ma la bëgg a invité. ndeysaan man maa waroon a woy début bi waali tëj ko. maanaam mhm. pour xamal la ci ñàkk ci ñàkk ci ñaanam. jour bi mhm. ma fekk ma ma dugal sama ay voix ba pare moom waali. Mhm. mu ñëw morceau yëpp. woo ma ko Sidi way na lépp. way dafa neex man amatuma sax lu ma ci way. ndax daal way na lépp te li mu way daa neex te bu wayee daa neex. parce soxnaam bëgg bëgg ma. papaam papa papa coono bëgg ma. ndeysaan. Ah. kon nag maa ngi koy ñaanal gudd fan suñu papa Thione ko ñaanal yàlla ci bisu anniversaire am bi ba mu mhm. fekkee bonheur prospérité lépp lu mu bëgg rek suñu borom ba pare nag di ko di ko déwénati di ko baal ak bay ñibbi si tasanteeg moom ci ci ci Daouda Mbow mhm. ma gaari sama oto ma jékki ma dem ba ci moom waali nuyu ko mu kott ma mhm. man ba ci ba ci ba beneen côté bi conseil ma ne ma lii man maa la ko jox conseil bii ma la ko déglu ne ma liw ak mhm. liw ak liw ak liw ak li liw ak liw ak liw ak lii mu nekk suma xarit nekk suma mag nekk suma mhm. gaañ ah ba mhm. pare nekk suma copain parce que ki lay teg këram di la déglu doomu bëgg la xaritam yi ay ay njóogu mbay xam nga njóogu mbay waaw ñu ngi koy nuyu passage ak ñaa xarañ loo gis nañu ah vraiment ñoom ñëpp a ngi seetaan dëkk bi vraiment kontaan nañ ci ñoom ay nit ñu baax waaw tout le temps day ñëw sama soirée tous les samedi five ñaa xarañ bu yëkkati xaalis bu bari teral ma yàlla bu may cee mosu bàyyi ñëf bi day ñëw aalo ñëw yëg bari may ma ñaaxariñ loo ah, Sali Gueye ah ba mhm. Diop ma di bajaan ñooñu ñëpp samay frère lañ Njagoro mhm. Lamine Oro mhm. Ndongo Njaay ñu doon ay nit yoo xam ne dañ maa bëggal seen bopp yàlla tax kon nag bon maa ngi koy ñaanalaat rek ci bisu anniversaire am bi xam naa ni moom moom lañu tëj mu dund dëgg la waaw mais mais sa sa relation Pape aussi Pape Diouf Pape Diouf fu may dundee ak moom maanaam nga gis ko mu woo la concert